ñu dëgmal sargal jigéen euh, euh, rahim di sant yàlla bu baax di juri ci yonent bi sangu-sang yi di la jaajëfal ndax defe naa ni lii nga ma laaj sax man boroon na maa wal butikuwaat di la ko laaj ndax sa waaye ku ne xam na weer bi ñu toll muy mars ñu Sénégal baaxooti di ci sargal jigéen àddina Baye Ndiaye Alburax Events euh, moom nag am vision boo xam ne ginnaaw xam ne ne jigéen mooy sunu yaay ginnaaw xam na ne jigéen ñoo ne ca kër ga ginnaaw xam na ne jigéen ak ñoo ñoom ci société bi mu jël ci benn bis ni dafay def événement ànd koog Wally Ballago mi nga xam ne ku ne xam ne ne dootu ko kenn du ko waxati ci àddina ah, mooy sargal jigéen kon bàyyi daal defe naa ni woo na àddina woo na Sénégal ah jiital jàmm mujj jàmm événement bi événement bi la boo xam ne góor ak jigéen dara mënu cee dem bàyyi morom ji ndax jigéen ñi góor ñi leen waajal ba ñu tal 16 mars solo ba jekk gunge leen ànd ak ñoom kon nañu jiital discipline ak yar ak teggin xam ne Wally Ballago Seck dafay ñëwaat quatrième édition pour ànd ak Baye Ndialle Albrah Events ak membre groupe bi yëpp def la woon bu buñ paree Sénégal nag ndax ku ne xam na ne Sénégal dafa am jigéen ñoo xam ne dañoo bay seen waar ci àll bi Baye mi ngi liggéey ndax am nañu yàlla dénk diaspora bi ñu nga fa mën ko ñoo ñëw foofu dafay dem waxtaan ak ñoom te jigéen ña sargal leen ca biir Paris noonu noonu lay war a Europe bi yëpp ndax sénégalais yi ñu ngi fépp kon daal defe naa ne Youssou euh, yow jërëjëf ci laaj bi ak dalal bi loolu laa moom ci lu may wax di wax ni sori nañ ci avancé nañ di gërëm ñëpp salaamaaleykum Youssou maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu baax di la sargal yow mi taxaw sargal jigéen bi dañoo toll quatrième édition Baye Ndiaye umpantewul ak benn jigéen senegal te tubaar fakala macha allah nee naa leen doomu Khoudia jóob ji doomu ji Aale Ndiaye ji dafa defar réew mi dafa yàqul Sénégal te dafa dindi lu bari ci Sénégal dafa tax góor ñëpp xam valeuru jigéen Baye Ndiaye mii jigéen ñëpp dañoo war a parewaat sargal Baye Ndiaye parce que nag tubaar fakala macha allah ba mu wootee sargal jigéen la sagu jigéen génn mu bëgg jigéen xam valeuru jigéen am fu mu teg jigéen ba tax bii mooy quatrième édition édition bi xale jigéenu Sénégal ñëpp nag bëggatuñu benn événement soxlaatuñu benn événement xam nañ ni ñun waa pour ñu wayal ñu ci sargal jigéen rek lañ ko mën a amee ba tax na lu bii jar xale yi pare nañ pour jënd ko parce que nag liw bi liw bi ngelaw li la sama waa ji Baye Ndiaye mu Alaaji Ale Ndiaye Baye Ndiaye mu Aziz Ndiaye Baye Ndiaye mu Khoudia Diop sama mag gi dafa gën dafa defar réew mi dafa tax jigéen am valeur xale yi dañoo fàtte woon 8 mars liggéeykat yi rek ñoo ko daan feete toog waaye fi mu ne nii tax na réew mi góor ñi ñëpp ku am sa kado da koy denc ba 8 mars nga teral sa jigéen wala sa yaay kon doomu Alaaji Aly Ndiaye ji dañ koy ñaanal gudd fan fii fu bàyyam teg tànkam mu teg fa tànkam euh, Youssou maa ngi lay nuyu di nuyu waa Equivox TV yëpp di nuyu waa mbokku internet yi tey damay sant yàlla rek quoi xam nga sant yàlla weesuwul ñuy def benn ñaar ñett ba te yàlla dafa dogal nii fii ma toog nii ñi ma ko doon defandool ñëpp ñu ngi nii sama kanam ci ku ci mel ni Ndiogu Daba Diouf Mame mari ak Issa Ndoye ak Assane ba ci yow mii ñii ñoo doon équipe bi nga xam ne chaque année ñoo ko doon defandoo ensemble ak ñeneen ñi sama rakk ñoom dayanta tey kenn manqué wu ci kenn pattu ci kenn làggu ci yàlla suddaloo ñu ñëpp ñu fekke waat ko loolu laay sant yàlla di ko ñaan yàlla ba ñu def ko ba mu nekk ay vingt vingtaine loolu sant yàlla la sama càmmoñ ma fekk suma grand frère mu janooti toog nii zil cinq cinq toog te kenn wowul sa morom pour ñu daje fi ñëpp ñu fi daje par hasard kon di defandoo benn affaire ay nit man affaire bi moomuma ko li may yàgg di wax rek dañ la jiital pour nga nekk ci kanam rek tey su may jigéen su may xarit su may lépp ñii laa ko doon defandool chaque année te ñu ngi nii toog kenn manqué wu ci kenn defu ci dara bu ci kenn manqué woon sax da ngay am kersa wala nga am dara mais yàlla dafa dajaloo ñun ñëpp ñu dajaloo fi. caméra bi woowuñu ko dafa ñëw di la mm. seet yam ci. kon maa ngi sant yàlla bu baax a baax di jox rendez-vous ñëpp le 16 incha allah kàddu yi Assane wax na ko ba Sali Babel wax na ko ñëpp wax nañ ko jox rendez-vous nit ñi daal le 16 ñu teel a ñëw ñu def fête incha allah.